Euh, monsieur le ministre euh, sénégalais yi ñoo bëggoon nga porter benn plaidoyer auprès de la Sénélec parce que la Sénélec dañ leen jaayoon woyofal mais dañu dem ba ci biir ñu ci bëri gisatu gisatuñu seen bopp ci biir et il voudrait retourner au compteur classique mais malheureusement boo demee ba nga jël woyofal bi tu peux plus retourner et je pense que dafa nekk su suñu droit ku nekk nga choisir ban comment tu dois payer ton courant parce que kon dafa am am na ñoo xam ne ñu ngi ci Tigo am na ñu nekk ci Orange de la même façon nit ki na nga mënee jël woyofal bu la neexee boo si gisu sa bopp am nga droit retourner au compteur classique donc euh, côté boobu la ma lañ ma foofu laa bëggoon intervenir pour wax pour nga porter ñu plaidoyer bi au niveau de la Sénélec pour que ñu faciliter cette chose là de retourner à la à la case départ beneen bi mooy am na ñu ne dañoo bëggoon pour nga installer leen. Euh, des lampes solaires dans les les les, les milieux des cultes les milieux cultes dans les églises ci tamit jàkka yi et je pense que c'est mieux bu boobaa dañuy am autonomie dinañ mën a nekk indépendant parce que très souvent bu amee ay événements ils sont obligés d'aller vers les mairies pour ñu mën leen brancher te parfois en pleine cérémonie coupure day am donc euh, bu ñu la mënoon mën a financer les lieux de culte pour ñu mën a am des lampes solaires je pense que ce une bonne chose Merci et j'espère que le, le café Touba était